il est ambitieux te bu ko neexee def politique ba tax na nañu bokk ndey revoir suñu position xeex li nga xamante ni tey ay lâche comme Ousmane Sonko nek seytaane bëgg tar taar réew mi di woo nit ñi à ce que suba ñu génn maa ngi wax ni Ousmane Sonko terroriste sax moo ko raw ça je le dis haut et fort parce que il veut brûler ce pays avec ses collègues d'opposition de cœur radical may wax ni aussi BBC simple reportage bi mu def lu tax defu ko nigeria ndax tax ñoom demuñu Nigéria xool seen gestion bi nuñ seen gestion pétrolière nuñ koy nuñ koy doxale mais ñëw fii Sénégal bëgg a taal suñu réew mi instrumentaliser ay ay mercenaires Abdoul mbay di tabax benn immeuble 7 milliards fii ci Mamel dafa am leçon de morale bu muy jox nit ñi tout à l'heure j'ai entendu Sonko muy joxe référence ci Baba Aïdara wax fi wax yoo xamante ni tey à la veille des élections pour déstabiliser le pays ni am na benn machine pour nous technopole transformer les eaux usées en eau potable mais nous avons dit bu nous, en tant que ay patriotes la nous woowee seen de duñ ko vérifier mais Baba Aïdara n'est pas du, référence c'est un menteur de classe exceptionnelle ça je le dis donc mieux vaut que nous arrêtions arrêter façon y. nous mi ñun ñëpp a ko nous ne ñun ñëpp va rester ici il va continuer sa politique au niveau national et je dis haut et fort ici que pour nit wala buy politique ku mu neex mën nga opposé mais tey géejawaay gis nañ fi ñoo xamanteni tay ñi ngi profité ci situation bi amna sen ben benn collègue Ahmed Aïdara je le dis ici report de report euh, nu mu koy tuddee sax nu muy défé sax lolu revue de presse mais c'est pas sincère parce que day tok lu lu presse bi bind mu wax le contraire bu ko arrangé mu wax ko nu mu ko nexé mais na japp ni mouvement bobu effrité na amatul dara géejawaay la bok représenté tul dara ci Sénégal et je le défie ici élection locale di ñew waxuma le centre de vote mais bureau de vote sax du ko gagné Sam Notaire te pour mu nekk mbeenu ville na ko leer ni na ko leer ni dina gagné commune de Sam Notaire te commune de Sam Notaire waxuma centre mais bureau maa ngi koy défier fii ba élection locale yi bureau bu ko gagné ma bàyyi politique man Ablaye Mbaye donc man maa ngi lancer un appel à tout ce que les tout toutes les forces vives di département de Guédiawaye ñu ànd jàppale suñu maire ci combat bi nga xamante ni nekku ci dara lu dul Ben bouclier buñu ñu rek pour bëgg a taal réew mi donc nañ leen conscient ci loolu maa ngi leen di sant leen gërëm du ma ñëwaat sax ci affaire yi merci beaucoup